deme ca Pikine rue 10 soxna suñuy wax Kiné Gaye place ba muy liggéey di ab multiservice fa la fa ay nit yu ngànnaayu di ay agresseur dugg fekk ko fa ngir bëggoon a jël xaalis ba mu yore ndaw si doon bañ lànk ne du ca dal ci la ko gaay jamee paaka ci pooj bi déewul ñu daldi koy jam ci biir bi mu soogaa faatu journal Futurs Médias bi ne li ci gën a doy waar nag moo di ne ndaw si dafa ëmboon ba toll ci juróomi weer Les Échos ne kaawteef dëgg kay moo am démb ca Pikine rue